sëñ Moussa ba mu ba mu wootee wooteem bu njëkk ci bis bi te wax ni sëñ bi moo ko dajalaloo mbooloo daam nu mu ko doon def mooy fee ci biir barabu sëñ Tuubaa la wut ñeenti kàng yoo xamante ni toll nañu kenn ku ci ab koñ pour xat ma ko mu wutaat fukk ak ñaar yoo xam ci mihrab bi la ñuy nekk jàng fukki kaamil ak ñaar wutaat fukk ak ñaar yoo xam da leen a ci biir jumaa ji ku ne jàng fukki kaamil ak ñaar muy ñaar fukki kaamil ak juróom-ñett koñu jumaa ji jës bu mu Mawaahibu Muxaddimaat Mimiya ñeneen ñi mënul loolu mun leen lu waay man ci lu baax na ca nekk salaatu na bi istixfaar lu waay xam rek na ca nekk waaye bëggul kenn toog loxoy kese ba set loolu la waxoon ne nañ ko fanaane ni bu boobaa borom ñi dara nañ dimbali ñu néew doole borom xam yi nañ laabiire ñu xamul bokk yi nañu dundal seenu bokk dox loolee nag moom la yàlla dogal at yi yëpp ñu di ko defaat noonee mu ko daan defee loolu suñ borom defal nañu tawféex dimbali nañ kon li ñuy wax lu weesu la lu weesu nag buñ koy wax dañoo bëgg ñi fekke tey xam fu ñu teg seen tànk gën a yokk seen yitte seen diggante ak seen gën seen borom gën a farlu yàlla gën a baax ci démb la mu yoroon jox ko waa démb rek toog ba léegi suñu borom dese na lu mu joxagut kenn moo tax nu bëgg nu fa feddiliwaat sunu laxasaay laxasaayuwaat la mag ña doon wut muy ngërëmal yàlla nu continuer di ko wut cër yooyee mag ña amoon ñu bàyyi kook ñoom te wuti yeneen cër ndax suñu borom jeexalul moo tax ñu doon dundalaat jataay bi suñu àggee ci njàngum alxuraan bi ba noppi suñ xaat di jaxate mi moo ko doon taxaw noonu lañ ko doon defee sëriñ Moustapha mii li moom sëñ Mahmadan lañu lañu jàpp nun mu représenté fi sëñ Massamba ndax moom la ko sëñ Modou Sa doon taxawuloo man jàng xat su paree suñ moo bind ab discours fàttali nit ñi yàlla suñu borom fàttali leen ndigali suñu borom yi fàttali leen sëñ Tuubaa mi ñu dawoon wut si ko nu mu bëgg nu def ko fàttali itam naal lii fi sëñ bi bàyyi woon nuñ ci war a taxawee loolu rek mooy kii loolu mooy undu jataay bii rek bëgg nit ñi xam ni guddi mënoo caa dem te ak ca jaaroo ci bëccëg ba waaye lii nuy def ci bëccëg bi lépp guddi gi rek lañ soxla guddi la gu rëy boo xamante ni mat naa bàyyi xel te sëñ Moussa daa waxoon ni sëñ Tuubaa keroog ba mu jógee njaareem di ñëw ña ko gunge woon saa yu bis bi del siwaatee fii la ñuy fanaan si ak moom ne ku fi fanaan ak ñoom suñu borom jéggal la say bàkkaar nit nag lu ko naqari ci boppam bu ëllëgee bàkkaar ak ko teg kon boo xamee fuñ koy fare jar na sol dàlli weñ di dox ba dàlli ya xar ngir nga àgg fañ koy defe rawatina nag jamono nu toll noonu nga xamante ni saa yoo génnee gis loo bëgguloon a gis te sañoo koo bañ saa yoo génnee dañ la wax looloo warutoon a wax te sañoo koo bañ dañ la def looloo xamante ni sañoo koo bañ te dara neexu la ci te yépp yuy waral merum suñu borom rek lay doon waaye nag nu am loo xamante ne nii kenn amu ko noonu rekk ko moom mooy ar rahmatul muhdaat yërmaane jii nga xamante ne ni bunt la bu nu suñu borom xéewale ubbil na ko muy Sëñ Tuubaa nu war koo jariñoo loolu rek moo doon kàddu yi nga xamante ne nii bëgg nañ ko yow boo ko defee dañuy jox sëriñ Moustapha moom sëñ Mahmadan Diop moom sëñ Massamba mu defal nu xat xatmu Qur'an bi su ñu barkeeloo ko ca jéego yooyu nga xamante ne nii mag ñi daan nañ ko def te ca yaakaar nag loolee ci mag ñi amoon nu am ca lu kawe suñu njot suñu paree jox sëriñ Xaadi Jaxate discours yi nga xamante ne nii Cheikh Mouhamadul Moustapha daana ko bind di ko fàttali jaboot gi moom itam mu fàttali ci am njaboot ba ku fi jóge da xam lu wér loo xamante ni da nga ko yóbbaale ba bu ëllëgee itam saa yoo tarxiisee da danga xam ni tarxiis koy dox la ñeel waaye du ñu la sant dama bëgg rek taalibe Sëñ Tuubaa yëpp xam fu ñu teg seen tànk te bañ a topp naq saxar nag ji ndax Sëñ Tuubaa mii ci mbedd mi ñuy waxtaane bokk ak mii ci téere yi mii ci téere yi lañ soxla moo niy jariñ tey moo niy jariñ bu ëllëgee loolu rek moo doon jataay bi bismillahi rahmaani rahim sadaqallahu al-aziim wa ballagha rasuluhu nabiyil mustafa al-karim wa nahnu ala ma qaala rabbuna wa mawlana min ash-shahidin allahumma arhamna bilqur'ani alkarim wanfa'na bil ayati wa dhikri alhakim waj'alhu lana hujjatan yawma ddin اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات وذكرنا بما دربت فيه من المصلات وكفر بتلاوته عنا السيئات إنك مجيب الدعوات اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهو من سهو أو نسيان أو تحريف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعويل على خير ما أنزلته أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو ضيق اللسان أو وقوف بخير وقت أو إدخال بخير مدخل أو إظهار بخير بيان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان وارزقنا قدر من خلعه مؤديا حقه مع الأعداء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا من الخفضة والكسلان وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبين وجوهنا يوم البعث واعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنة النعيم اللهم اجعله أنيسنا في الوحشة ومصاحبنا في الوحدة ومصباحنا في الظلمة وذليلنا في الحيرة ومنقذنا في الفتنة واعذنا به من الضيق والأهواء وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة آمالنا وقرن بالعافية غدونا وآثالنا واجعل إلى رحمتك مسيرنا ومآلنا واسبب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا اللهم اجعل تقواك زادنا والثقة بك زخرنا واعتقادنا وأمن من الدوه والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه بروح سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولأرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وذرياته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين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 wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina moolana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi ummati ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare ci bis bu tedd bi ci barab bu tedd bi di leen balu xaq di leen balu di ñaan suñu borom mu boole ñu baal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 Euh, taarix bi sëriñ Ahmadou dellusi na ci dellusi si gu mat sëkk euh, noonu rek ci lañ doon barkeelu euh, bi ñu xëyee dajale nañ ñaar fukki kaang ak juróom-ñett ci barab bi ak li ko wër ñu jàng kenn ku nekk wàccee ab kaamil moom la sëriñ Moustapha am Serigne Mahmoud am xat mu léegi nii lool it tabarrukan ca na nga xam ne Cheikh Mouhamadou Moustapha daan na ko def di ko defloo euh, way juróom wa Cheikh sàmba euh, su noppi woon it daan dajale mbooloo mi di leen soññ ak fàttali loolu it suñ borom def def ci tawfiq mu daan ko defee defiin woo xam ne wa gënoon a déggoo ak jamonoom la ndax ku ne xam na ne jamono booba euh, communication ubbi koogut nii jokkaloo ci boppam muy li jiitu ci jokkaloo muy dem yombutoon daanaka waxtu wu nekk ci bis bii rek ci la daan am occasion li ëpp ci kilifa yu murit yi mu daan ci bind ab discours bind ga bari njariñ lool ndax kilifa yi daan ñëw ku dikkoon da nga muññandiku ba sotti lu ko door ko yóbbaale soo delloo ci biir réew mi kilifa ya mënutoon a ñëw dañuy yebal ay ndaw ñu di leen ñu sotti leen ko ñu di ko jottali eh, loolu di tawféex gu rëy mu dox ba nëgë soo ko tiimaatee day mel ne waxtu wi moo taxoon ñu di ko bind. loolu tawféex gi mooy lim ko bindoon su fekkoon lu mu doon wax rek la ñu di ko nettali kon bu dikkaatee leewaat ko na mu ko waxee woon dana jafe ci xitaab yooyu nga xam ne nag Cheikh Mouhamadul Moustapha daan na ko def ci lañ tànn benn tey. bëgg ca barkeelu jéem ca fàttali suñu bopp jéem ca fàttalanteeg mbokk yi xëy na dañ ci indi ubbiku gi rek ni mu ko tënke ci arab waaye jàllale ko ci wolof ngir waxtu wi kon dafa wax ne auzu billah bismillah inna waliyallah alhamdulillahi allasi bi nicmatihi wa jalalatihi tatimu saalihat wasalaatu wasalaamu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ulil masiyaat amma baadu fa inni uwajjihu ilaykum ayuha al ixwaan annaasiluuna fi hasi al adrati fi hasi al adra fi hasi al buqaati allati lam yuqsad bil ijtimaaci fiha fi hasi al ayaam illa li ibtiqaai wajhi rabb al ala bitawbati nasuux wal iqbaali ila llahi taala bitilaawati kitaabi al aziz wal ittiaasi bilmawcisati al xasana wal ictibaar fi afxaali alxaaliqi bi xalqihi wa tafakkuri fi ayaatihi wa duaai li ixyaai almuslimina wa amwaatihim imtisaalan li amri rabbi taala yaa ayuha allasina aamanu tuubu ila allahi tawbatan nasuha xase rabbukum an yukaffira ankum sayiaatikum wa yudxilakum jannatin tajri min taxti al anhar ila axiri al ayat Cheikh Mouhamadul Moustapha bi muy ubbiku ci wax ji mu jiital muslu ci seytaane teg ci turu yàlla dellu ci suñu boroom sant ko ci xewal yu rëy yi nga xam ne mi ngi koy defal jaamam ñi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak àndandoom yi nga xam ne lu baax lu nekk ñoo ci jiitu bi loolu jàllee mu wax ne yéen mbooloo mi wàcc si ci barab bii muy ñëw ci tuubaagu gu tedd gii ci bis bii nga xam ne mooy bëccëg gu mel ni kii ñu nekk fukk ak juróom-ñett ci weeru muharram mu ne te dara taxul ñu sàkku ngeen teew si fi dara taxul leen fee teew si lu dul jëmm yàlla tabaraka wa taala boole kook tuub gu sell ànd ak dellu ci suñu borom dellu gu wér te jaare ko ci jàng alquran waaru ci eh, waare yi nga xam ne ñi ngi ko fi def gën a yéemu ci jëfi suñu borom tabaraka wa taala ci jaam ñi di xalaat ci kiimaanam yi tey ñaanal jullit yi ñiy dund ak ñi faatu mu ne te loolu dañ ko def sukkandiku ko ci ay alxuraan ci suñ borom wax ne yéen ñi nga xam ne yéen da ngeen a gëm yàlla de leen tuub di dellu ci seen borom tuub gu sell ndax lee suñu borom tabaraka wa taala faral leen seeni ñaawteef tàbbal leen aljanna mu tegat ca beneen aaya boo xam ne suñu borom tabaaraka taala day wax ne ñi nga xam ne dañuy jàng alquran di julli di dimbalee ca la leen yàlla wërsëgale ci biir ak ci bitti ñooñu day ñi ngi def euh, njaay mu tonawu mooy commerce bu am bénéfice kuy def loolu kon ëllëg dana am bénéfice ca boroomam naka noonu mu ne suñu borom tabaaraka wa taala wax na ci alquran ne euh, dee leen woote jëme ci seen borom waaye di ko def ci xikma ak waaraate bu rafet bu sell ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasana mu ne suñ borom wax na ci alquran ne fa'tabiru yaa ulil saar yéen ñi nga xam ne am ngeen ay xel dee leen xalaat ci li weesu neen suñ borom wax na ne dee leen ma ñaan ma di leen may su ngeen ma ñaanee ma may leen kon mu ne lii bokk na ci li tax ma woo leen fi mu teg ci ne ñu ngi sant suñu borom bu baax nag ci mboolem xeeti cant yépp yoo xam ne eh, ab jaam dana ko sant jëme ko ci boromam dolli ci nag yow suñu borom ñi ngi lay seedeel tuub gu dëggu gu sell gu rëy gu bàyyikoo ci ñun ci mbooleem bakkaar yu mag yi ak bakkaar yu ndaw yi di la tuubal tuubiinu jaam boo xam ne xam na ne mënalul boppam dara moomul ci boppam dara doonul ci boppam dara du dund du dee du yëngatu du dal lépp xam na ne boroomam gannaaw tuub googu yi mu ne suñ boroom ñi ngi tàllal nag suñuy loxo di la ñaan tey yaakaar ci sa géej ji tedd nga yi nga dëppale ñu ak njub nga dëppale ñu ak njub kon lu mu doon ñaan ak njub loolu it siiwee woon na ko loolu nag lu luñ ciy dollil mooy lim daan wax ne kenn gënuma bàyyi waaye juba ma doy waaye ko gis ubbiku gii mu ubbiku tam xiit ci suñu borom ba àggal tàllal ko loxo ñaan loo koy ñaan ak njub kon lu mat a bàyyi xel la di la ñaan ak njub e, naka noonu di ko ne ko suñu borom ñi ngi lay ñaan it nga teg ñu ci siraatal mustaqim ñu bañ a génn mukk sa sag na mel te nga sotti ci kaw ci suñu kaw say xéewal ak ci suñu biir lépp ci àddina ak ci àllaaxira dal di nag ci wéyal dénkaane bi wax na yéen mbooloo mi na ngeen xam ne dangeen a nekk ci diggante digle ak tere dige ak tëkkoo digle ak tere dige ak tëkkoo kon ku nekk ci diggante digle ak tere dige ak tëkkoo da ko war a bàyyi xel bu baax xam ne saa bu jëfee liñ ko digal dana jot ci liñ ko dikk saa bu nekkee ca lañ ko tere it waliyaasu billah lañ ko dëkkoor nga nga ne di ko nekk mu ne kon na ngeen xam ne ci diggante boobu yi ngeen ne te xam ne àddina ab jaarukaay la waaye alaaxira mooy saxuwaay ba mu tegaat ci ne maa ngi leen di dénk ngeen di jëfal àddina lu tal ne li ngeen fii nekk àddina na ngeen koy jëfal lu tal ne li ngeen fii ne lu mat a dégg la te mat a bàyyi xel ndax kuy jeex ne ci luy jeex te ba faawul lu dul jeex xel nanguwu ko kon defal leen àddina lu toll ne li ngeen fii sax defal àllaaxira lu toll ne la ngeen fa nar a desi te àllaaxira amutub yamukaay kon la ngeen koy wutal bu mu amub yamukaay dee leen defal seen borom lu toll ne li ngeen koy soxlaal te yàlla jaan ñi ñu ngi koy soxla ci lépp kon kenn du jóg ci moom wax ne suñu borom tabaaraka wa taala dafa wax ci alquran ne yéen nit ñi yéen a ñàkk yéen a néew doole yéen a aajowoo seen boroom seen boroom moom mu nga xam ne alxani alxaniyul xamid moo am lu ko doy sëkk tadib santaakon mu wax ne maa ngi leen di dénk ngeen di waajal bis penc ngeen di waajal bis penc di ko fàttaliku te di ko bàyyi xel te bañ a wooru ci àddina mu ne na ngeen xalaat ci àddina ak ni mu bindoo xool leen ñi leen fi jiitu woon nga xam ne yéen da ñëw dégg ñu ne am ñu fi masoon a ñëw ngeen dégg seeni tur waaye xalaat leen ci ñi ngeen fi nekkaloon te jiitu ji leen ñaar ñooñu kumu ci muy ñi leen jiitu woon jëkk ngeen di ñëw ak ñi ngeen fi nekkandooloon te jiitu ji leen mu ne kumu ci ñooñu am na ci ñoo xam ne ñoo fi tabax tabax yu rëy yi ngeen fi gis ñoo fi tabax njëndi yu rëy yi ñoo dëkke woon pale yi tey ñi ngi ci biir bàmmeel ne cell daanaka kenn waxatut ba tudd leen daanaka kenn siyaare jeetu leen lu des wa wajadu ma amilu aadiran suñ borom nee na ku ñëw ca yàlla danga nga fekk la nga fa jëfoon mu ne ñum teew dara du ca jóg Cheikh Mahamadul Moustapha kon ne ñoo ñii ngeen xamoon tañ jëfoon fi jëf yu rëy yi te tey ñu ne lew ci seen i pax daanaka nit ñi waxatuñ ba tudd leen daanaka ñu néewee jàdd ca ñoom di leen siyaare ji tey day ña ca seen biir i pax ñoog seen jëf yàlla na fekk mu rafet mu ne ñooñu day ñoom bu dee ci àddina rek seen yaakaar fàddu na ci xanaa kon dara deseetul lu dul yaakaar seen yërmandey borom yàlla na leen ko yàlla defal euh, mu ne na ngeen xam ne suñu borom tabaraka wa taala mooy bégle mooy sànjal wa adhak wa abka wa annahu wa amaata wa ahya mooy dundal mooy rey lu neex mooma lu naqari mooma yàlla lépp mooma te dara rëyut ci moom mu ne yàlla wax na ci alquran di wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ko nettali ëllëg yowmal qiyaam euh, yéefar yi su ñuy gis seen mbugal euh, bañ war leen caa jël jëmee ci njàqare la nga xam ne danañ ko am euh, diggante boo xam ne saa bu kii wootee woo ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci ab safaan ñu war leen a jël yóbbu leen ca seenu pay nañuy tiite nee na loola ku ko bàyyi xel danga xam ne àddina amul solo te kon la mat tey jëfal mooy ëllëg di yowmal qiyaam suñ borom dafay wax ci masaahida yowmal qiyaam mu yowmal qiyaam ak yi ci aju di wax ne danga fa gis ci ay njàqare loo xam ne nit ñi danañ àgg ci dootuñ ko mën a dégg bay ganar ganar mel ne commande yi te fekk mandi waaye mbugal mi moo rëy moo ëpp seenum xel àgg na ci di wax ne ëllëg suñu borom tabaraka wa taala dana bu mbooloo mi buñ attee te jëf ya walxiyaasu billah ñu bari sawara yay leen ba ñuy dugg dana laaj dugg ba dugg ba bari suñ boroom laaj sawara ndax fees nga mu naan ko ndax amoo ndolleen Cheikh Mouhamadul Moustapha ne suñ boroom mi ngi fàttali ci alxuraan ne nit nay bàyyi xel ci ay jëfam te xam ne ëllëg yowmal xiyaam suñ mu muree kiiraay la jëf baax rek dafa doon am njariñ koo xam ne nag bi nga nekkee ci àddina sa bakkan dalaa gañe woon nga toppoon àddina fatte woon sa borom baa taloo ko woon fa innal jahima hiya al mawa wal iyaasu billah gaaraas bu mooy jahim rek mu yëmu ci ne sawara mooy tappukaayam waaye suñu boroom ci boppam moo wax joxe tuuti ay melokaan ci sawara innaha saat mustaqarran wa muqaama suñu borom bi mu tuddee sawara daf ne ndaw see ndaw see suur bu naqari ndaw dalukaay bu naqari ndaw barab bu doy waar. ba tey suñu borom ci alquran ma ngay melal ña fa nekk yuuxu ya ñuy yuuxu di xaaju naan yàlla jëlee ñu fii yóbbuwaat ñu àddina kon day lañ defoon ba ñëw fii dootuñu ko def mukk ay haata loolu faat na eh, bi mu jógee ci loolu wax melal ñi nga xam ne ñoo ne ci sawara ci ayat alquran yi. suñu boroom it ma ngay wax ne wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al mawa waaye koo xam ne bàyyi woon na xel àddina bi mu nekkee ci àddina bàyyi woon na xel boroomam euh, tàggat bakkanam dox digganteem ak bànneexam ne ci ndigal yi di wattandiku tere yi moomit it fa innal jannata hiya al mawa euh, tappukaay ba barab ba mooy aljanna nam waxoon ca sawara mu defaat ko ne wa asunat mustaqarran wa muqaama bi ne kooku barabam mooy aljanna daf ne ndaw see suur bu neex aljanna ndaw dalukaay bu dal ca lay waxee nag wa fiiha ma tastahil anfus wa talassusul ahyun ajjana mooy fi nga xam ne ku fa xis dugg xemmemteef day jeex lépp loo bëgg day mel ne bouton buñ lëkkaleeg sam xel loo bëgg sa borom defalee la ko noona suñ borom moom it nam melale woon ca sawar ak méttiwaay ba mu melale ko mu melale ci dara ci aljanna ak euh, neexaay ba cheikh mouhamadul moustapha wax ne fajtahidu fi imtisaalil awamiri wa daariku xabla fawatiha na ngeen farlu ci topp ndigal yi te gaaw ci bala moo raw te gaaw ci bala moo raw ndax lu nit di wax kat ak def daa fekk ngay dund daa fekk nga wér waaye ku amuk dund sànq ko ci leneen ba dee dikk bu dee dikkee du xaaralaate ku amuk wér sànq ko ci leneen ba wéri di ñëw mën ngaa yéene waaye dootoo man Cheikh Mahamadou Moussa wax ne bi ngeen di dund te wér góorgóorlu leen ci jëfe ndigal yi te góor góorlu ci wattandiku tere yi balaa muy weesu te bu leen naagu ci yërmande yàlla te xam ne yàlla moom ab jéggale akoon la bu lewet bu am yërmande te yërmandeem sax mu lamb lépp te it la mu wax mooy man jaa bil hasanati falahu am amsaaliha wa man jaa bis sayyiati fala yujsa illa mislaha nee na yàlla ku neex a jëflanteel la ndax koo xam ne soo defee benn bu baax mu dolli la ci yeneen juróom-ñeent muy fukk mu dencal la ba nga ñëw mu jox la ko soo rëccee ba def ab safaan mu ne tekk di la déglu soo ko tuubee mu jéggal la ko soo ko tuubut mu tëyal la ko fa noona du la ca dollil dara kon warees naa mën góor góorlu ba Euh, wottandiku say benn benn ëpp say fukk fukk kon ñu bàyyi xel ci loolu baax mu teg ci it wax ci suñu diggante ne innamal muminuuna ixwatun fa bay na axawaykum suñ borom tabaaraka wa taala wax ni jullit yépp ay bokk lañu loolu moom jëfi yàlla lu mu leen ci sant fa aslihu bayna axawaykum góor góor leen ci seen diggante yéwénal ko defar ko kenn ku nekk lu mu yéene boppam mu yéene ko moroomam lu mu bañal boppam mu wattandikul ko moroomam te lu ci ragal yàlla te wattandiku noono ak bañante ak ay kompaloo ak a tàbbi ci lu dul noona te amu bi mu ko ci wàll googu it mu yeesalaat dénkaane ba ne maa ngi leen di dénkit ñi leen yàlla booleel ci jamono ñuy seen kilifa yi àddina ngeen am ak ñoom maslaa wax ne ndax ñoom kat ñoo yor doole àddina ji te ñi ngi jàppalanteek ñun ci suñu mbirum àddina te yàqaluñu ci suñu diine kon nag yéen it na ngeen jàppalanteeg ñoom dellu ca aaya ba suñu borom wax ne yàlla terewu leen ngeen eh, jëflanteek ñi nga xam ne gàllankooruñ leen ci seen diine gàllankooruñ leen ci seen àddina te ngeen maandu ndax yàlla dafa bëgg ku maandu euh, muy discours bu am solo boo xam ne li mu ci tënk benn aaya boo ci jëloon rek wala xadis yi wala wax ji ci biir benn bu ci nekk doyoon na sëkk ak soññee akuk fàttali mu fàttali ñu ko xamal ne àddina ab jaarukaay la waaye ëllëg àllaaxira mooy kër ga kon ñu bokk bàyyi ko xel bu baax a baax yàlla na yàlla dimbale ba nii munu ko digale ñu jëfe ko nii te lam ci bëggoon ba tax mu koy digle suñ borom defal ñu ko ci asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. jërë ngeen jëf mbokk yi ni doon topp kon ba léegi rek ñu ak yéen ci bis bu màgg muy bis bu Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké defaloon Cheikhul Khadim te mooy bis bi mu ko jëlee Njaareem andi ko Touba bis boobu yi sëriñ bi di ko màggal. dégg ngeen ci biir waxtaan wi ni nga xamee ne que noonu la Serigne Modou Moustapha Mbacké waxoon ne nañ koy defe noonu waaye xam ngeen ne joxoon na ndigal bàyyi taxam bu baax ba di ma Massamba Mbacké liggéey ba am solo naka woon kat bés bi bu dikkee na nga digal jànkate alxuraan yi ñu jàng fukki kaamil ak ñeent ci fukki kaamil ak ñaar ci mihrab bi waaye ci barabu Serigne Touba bi nga xam ne moo tax ñu def bés bi nañ fa jàng fukki kaamil ak ñaar digalit ñeenti kaamil ñu jàng ci biir jumaa ji daf lay jox ñaar fukki kaamil ak juróom-ñett te mooy limu xaro fi Touba Cheikh Moustapha digle woon ko noonu mu ne woon ma sàmba nañu dàkk ñeenti koñu jumaa ji koñ bu nekk jàng ci genn xasida ci xasida yi nga xam ne Serigne bi daf ko doon tagg sallallahu alayhi wa sallama lu mel ne jës bul xulóob waaye bu naafi muqaddimatul amda ak mimiya mu nekk ñeenti mu nekk ñeenti xasida yoo xam ne sëriñ bi daa nañ koy jàng ci bis bi waaye loolu yëpp itam terewul ñi nga xam ne màggal si nañ te mënuñoo jàng xasida mënuñoo jàngal Quraan sëriñ bi bañ ñu toog loxoy neen mu ne nañuy def astaghfirullah nañuy jàng sikar nañuy sikar nañuy saraxe lépp lu baax loo xam ne am na yiw mën naa jëriñ ab jullit sëñ Mourou Moussa ne nañ ca nekk noonu yi nag mu ko digloo noonu lañ ko defe woon noonu lañ ko defaat ci kanamu sëriñ ko daan defee tey ji sëriñ euh, Moustapha Mbacké mu sëriñ Mahmoudan moo xat bu kaamil bi mbokk yi nu ànd ak yéen noonu lañu fas yéene dundale guddi gi ndax guddi la goo xam ne guddi gu màgg la guddi gu barkeel la guddi gu tedd la guddi gu fajkatu aajo la yàlla sama borom yi nii lañ fas lépp loo xam ne mi ngi bàyyi ko fii ci Touba njabootam daañu leen ko jot laan direct ba ngeen mën ko am ci biir réew mi ak ci bitim réew wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakatu